acca mbokk internet ci wasaare ñu ngi nuyu bu baax a baax xam tey ku ñu toogal mu toll nii euh, fii fii si Radisson mooy kii di Petit Production fu mu toll nii dafa yëngal làmb ji moom mujjee ñëw waaye tamit fu mu toll nii moom la ñëpp di tudd fu mu toll nii Petit ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum. waaw Cheikh maa ngi lay fay ginnaaw lu man sant junne sant suñu si Abdou Karim Mbacke baax nuyu waa Ngoyal Luchel ak waa wasaare TV tamit parce que mën na wax suñuy partenaires ngeen partenaires ngeen quoi lépp lu ñuy def gis na ngeen siy taxaw quoi ku ñëw ñu leen fay baax quoi di nuyu sama xarit Fal Fallou Fall Touba borom amul yaakalaate Abdoulaye Sarr depuis France di nuyu sama xarit Albes ak Jibi Pogba le promoteur xam nga sant ñëpp daal nuyu axlu làmb axlu showbiz axlu Sénégal di ñaan ci réew mu jàmm. tey la fekk fii sa Edison la moo nekkoon fii sa teewaay tey. xam nga àdduna moom boo ci nekkee da nga war a bëri ay ay ay ay affaire parce que moo tax Pape Diouf doon génne album tamit ñu ñëwoon fekkee ko ñu invité ñu si ñun tamit ñu suñu ay wóorale di suñu ay xarit ñu ñëw teewe ko. parce que àdduna moom nii la ku ne sa bés nga am soo sa bés da war a ñëw teewal ko moo loolu moo ñu war a di son buñ paree si wàllu showbiz bi ni euh, ñëw si wàllu làmb ji tëggul nga fi combat boo xam ne Sénégal yi yëpp ñoo ko na waxtaanee komba bu bëri woon coow lool lool bañ fa paree ñu gis koo xam ne toog na lu yàgg yàgg yàgg ñëw si wa ñëw si ëttu làmb muy Boucher nga si Boucher ñu waxati nga teg si kii di Ziza. combat bi signature contrat mel ni tulleeg màlle noo gisee loolu ak fan nga jëm ak ñun. waaw lépp rek liggéey la bu nekk war yi ko def ak sunu staff ak sunu ay xarit ak sunu ay mbokk parce que tey làmb dafa métti donc làmb métti na mais tey ku ñëw ci làmb mën na wax ne mu ñëw mujj ñëw mais yàlla dimbali ñu bokk ñi ñi jëkk a siiw te loolu ak sunu liggéeyu ndey peut-être ak sunu liggéey waajur quoi parce que bëri coow la bouse exigence ñi ko bëggoon bëri na ba donc bouse ay millions yu bëri leen sunuy compte fay ko jël sunuy moyen def ko si pour lépp bëggal amateur yi pour lépp bëggal Sénégal parce que lamb dafa toll foo xam da ngay bëggal Sénégal mais bëggaloo sa bopp mais xam nga boo jël centaine de millions jox ko Boucher loolu da bëggal amateur yi mais bëggaloo sa bopp tey la loolu doon ci sant yàlla baax daal xam nga tey Boucher Ziza lamb jooju amateur ñoo soxla jox leen ko ba pare jël Siteu bu Ngor Algérie junior jox leen ko te lépp ñu bëgg ko def même journée bëgg a woon ne te làmb tey am na cër buñ ci am te war nañ ko mën a jël te xale yi ci làmb tey war noo mën a defar làmb làmb tey dafa am lu wax lu bu lu ci manqué muy espoir yi tey da nga fekk mbër boo xam ne mbër bu ndaw la nga war ko yëkkati def ko mbër bu mag te man si loolu laay dox chaque jour su ko fee ma ñëw ci làmb damay jël koo xam ne ku ndaw la ma yëkkati ko xam ko waaw loolu laay def si làmb chaque jour maa si maa ngi si liggéey samay saf samay xarit parce que loolu moo ñu war. Mhm. gis Boucher dernier combat wax na ko sax signature contrat ba moo gën lu ko fay ëpp na lu ma 30 million te normalement mbër bu bëree benn 30 millions balaa muy ñëwaat di lu toll 50 millions. dégg nañ tamit jaay nga say bien def lu bare bëri pour décrocher kii di Boucher. waaw Boucher moom xam nga dafa baax rek parce que sunu waay la sunu xarit la comme naa nga mais li amoon solo mooy taxawal bi décrocher bi donc moom bëri na 30 millions loolu sénégalais xam na ko to wax na ko Sénégal ñu dégg ko mais donc ñun tamit bu ñu ñëwee di waxtaan waxtaan na li nga xam ne moom lañ ko mën a fay mais li ñu ko fay donc ñu mën a ci rajo sax di ko wax parce que koppar yi bëri na bëri goo xam ne foo ko teg wees na ko li ma wax am ay témoins ñu ko fekk ku ci mel ni Fallou Ndiaye li ma ko fay ëpp na 10 millions kon loolu tey lamb joo xam ne lamb ju neex la moo moo maa ci woo xarit ku ci mel ni Abdoulaye Sare France Fallou Fall borom amul parce que tey boo jëlee say moyens di xale jël ay moyens yu bëri def ko ci lamb tey pour lan satisfie amateurs yi bégal amateurs yi comme dama bëgg a bégal yi tey moo tax ma jël ay ay ay millions yu bëri jox ko Boucher lépp daal bëgg a bégal amateur la ak bégal sama waa dëgg waa Ngoyal si la parce que am na sas bu ma sas mooy ma am fu ma jël la am fu ma ko yóbbu a may nga na nga fu mu toll nii Siteu bu Ngor moom boo waxee laam ba muy tàkk ngëm lool. non yombul parce que tey lamb dafa bëri coow parce que du yomb te lamb dafa bëri ay ay ñu ay ñoo xam dañu yàq lamb da nga ñëw nekk sa yoon di xale di liggéey ñu yàqal te loolu dafa ñaaw te loolu rafetul du image bu rafet si lamb du image bu rafet ci ci suñu réew parce que boo dee xale di liggéey jël sa 100 francs di wax ñii dafay 200 ñii dafay 300 xam nga rafetul te tey dañoo ñëwoon ci làmb pour tëgg am ñoo xam dañoo ñëw duñu yàqal mais lépp daal ñoo a xam ne tey bu ñu fayoon 3 millions ñu fay 4 millions te loolu rafetul parce que ay xel lan ñu ngi ci di liggéey tey yow munoo wax ne as bi petit am laa am pour dugg ci làmb petit magam nga wala tontom nga wala papaam nga kon tey bu ñëwee di xëccoo mun affaire da loolu sant yàlla quoi nan ko sant yàlla baax parce que nee nañu ñoonu wax nit dem bu nangoo tey seen i pexe jubul te ñun ñooy sant a nangu liggéey bi yëpp su liggéeyal Sénégal la parce que tey si bi nga xam ci làmb leen ko def leen ko liggéey defaat ko ci làmb kon loolu ñun tey ñu sant yàlla baax a baax demuñu fenn gënuñu réew mi demuñu fenn lépp millions yi am yëpp ci Sénégal lañ ko jële defal ko Sénégal même mun koy def ci mbëri di persa a def parce que suñuy doomi <laughs> gis nañ tamit temps yi buñu si wàllu làmb ñu del soit gis nañ temps yi soirée Sidi Diop boo demee dañ fay gis Petit gis nañ Petit ak Bastoun même combat yi passé sax Bastoun la woon tey nga ñëw fii si Pape Diouf di génnee benn album bu bees tuddee tuddee ko écouter est-ce que tey kii di Petit dafa dugg si bis bi wala dafa bokk si waa Subatel wala dafa liggéey ak ñoom. non man moom donc xamante ne artistes yëpp samay xarit lan peut-être samay frère lan samay xarit lan xam nga muy Bass muy Sidy Diop muy keneen ak Ibro Naajo ci gën a ndaw ba ci Talla Diazaka ñëpp xam nga El Hadj Keita samay xarit lan Tarba Mbaye parce que tey li ma sax ak ñoom mooy ñoom ñu am seen bés woo ma ñëw teral leen parce que loolu mooy àdduna parce que peut-être su ma amee sama bés dinañ ñëw ci sama parce que àdduna xam tamit loolu lañ fi am suñu ñëpp ay ndaw la ñu mën a jàppalante suñu biir parce que tey day metti ngay ndaw xam la gëstu gisoo kenn quoi tey comme tey man ma teg sa laam rek nit ñi ñëw amateur yi ñëw xam defalu ma leen dara tey tamit suñu tegee suñu soirée ma ñëw rek loolu cër bu ma leen dooloo la waaw loolu cër bu ma leen dooloo la mais ñu ngi xalaat peut-être dugg ci showbiz parce que tey liggéey la comme liggéey pourquoi pas ñu lépp ñu ngi ci liggéey parce que ñoo wax suñu staff di xool lan la mën a yokk ci réew mi lan la ñu mën a yokk ci par programme loolu làmb kese parce que tey petit production war naa mën a gën a la war naa gën a mag te ci loolu la ne incha ñoo ngi ciy dox ñoo ñaan yàlla suñu borom ñu ñaanal ñu baax quoi bu ñu ñaanal incha allah suñu mébét nañ ko def. Mhm. merci beaucoup Pod ñu ngi jaajëf bu baax a baax bu amoon yéen kàddu yoo xam ne rek moom ngay tëjee li muy doon. waaw sant ñëpp gërëm ñëpp rek di wax réew mi nag ñu def jàmm ko ñu ñaan ci réew mi jàmm parce que damay am muy ay doomu aadama jël seen ay fetel comme li xew Mbour barki dem lu dafa ñaaw Sénégal ban si la nekk Sénégal ban réew la ne man su ma gisee koo xam ne nga jël sa fistolet mbaa nga jël sa góon tiim ay doomu aadama deen rey man loolu xaw ma lan lañ ko mën a tuddee nan doxaat suñu réew mi nan defaraat réew mi defaraat toogaay ku ne tamit nga tiit sa bopp parce que tiit sa bopp jot na parce que réew bu demee ba tollu fii ku ne war nga tiit sa bopp ginnaaw loolu may sant sama xarit yëpp ñi nga xam ne maam Thierno TNT mondial Tizi sama xarit sama doom yaay maa ngi koy sant bu baax borom Colobane di jaay tisi bu baax TNT mondial tisi sama xarit Thierno di sant Abdoulaye Sare depuis France Fallou Fall Touba sama xarit du ma tey di ko sant borom amul yàqalaate xam nga baa jëli Colobane baa jëli Tarkinda waa petit production bi yëpp ñoom Albes ñoom Pogba xam nga ñoom muuri pu sama ji moom ma leen di sant bu baax ba leen gërëm yéen a xam ne feccam ri bu neexee day jàkkuwaat di nuyu waa Medina bi nga xam moo nekk pour l'avance xam nga leen sant leen gërëm di nuyu Alpha sama doom sama fils xam nga di nuyu ñëpp ñi nga xam ñoo may jàppale ku ci mel ne dëggal bu ngoy waa ngoyalu si la gëpp maa di nuyu di wax ne seen doom ñu ñaanal ko parce ñaan bi rek moo des quoi na ma ñaanal incha sama répétition ci làmb war naa ko a eggale quoi. pour l' avance kañ la may jox oto man wala bas. non damay di jox oto bu ngeen doxee service Basir sama xarit la pour lava Basir il faut mu ñëw sponsor bokk ci ñi nga xam ne dana pour lava sponsor seen émission yi ngeen def yëpp bu boobaa incha allah ñu gën a liggéey parce que société la boo xam ne tamit mu ngi nekk fii ci Medina di jaay oto luy oto décembre du bëgg oto boo ñëw ñu leen la boo bëggee raxas nga xasal la moket ak lépp loo xam ne entretien la ci kër doon koy def